mu ngi noonu ñu ngi lay ziar bu baax a baax a rafetlu ci sa teewaay ci plateau bi ma kon ma bàyyi la ak doyen. oui doyen suñu nijaay préféré sama tonton préféré suñu. sama tonton ñu maas doon gi. ama sarax la ko rek farme crédit léegi noonu doyen taalal sa micro taalal micro bi voilà euh, super euh, je pense que actualité bi riche na Aïcha li ñu war a mën a wax bari na aussi Pierre euh, Seydina Oumar Ba sànq aussi am na ay points yu important yoo xamante ni soulevé na ko dañ ci mm. tàmbali rek par rapport ak visit bi nga xamante ni président de l'Union européenne def na ko filee au Sénégal ñëw ñëw filee au palais de la République jàkkaarloog le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am ay kàddu yu nga xamante ni échanger nañ ko Euh, nekk nag lu bees on peut dire parce que daanaka li ñu nemmeeku woon bu njëkkaan mooy euh, président bu bees bu falu moom mooy déplacé wu dem France mais cette fois si ñoom def nañ ko benn clin d'œil mais Bassirou demul ñoom ñoo déplacé wu ñëw. alors euh, loolu naka nga ko jàngatee ak kàddu yi nga xamante ni biral nañ ko fa parce que parce que Bassirou Diomaye Faye a le président excusez-moi a parlé de partenariat rénové refondé. Mm, wax aussi et repensé wax aussi ci fayum impôt yi naka lañ ko war mën a defee ba nga xamante ni mm. Sénégal mi nga xam ne mooy euh, euh, xëy na recevoir yenn yu ci bëri ci entreprise française yi dinañ ci gis seen bopp naka dañ koy fayee ba Sénégal gis ci seen bopp. naka nga jàngatee jotaay boobu. am nga altine bi ñu weesu. président Diomaye Faye dafa recevoir ku ñuy wax Charles Michel. Mm-hmm. Charles Michel mooy président du conseil européen. Mm-hmm. conseil européen nag benn bànqaas bu nekk ci union européenne. Mm-hmm. léegi moom moo dajale bépp dirigeant boo xam ne président nga wala bokk ci vingt huit pays yi yi formé Union européenne mhm. léegi daanaka daal moo ci gàttal mooy gouvernement wu Union européenne mhm. ñoom ñooy joxe orientation politique yi ñoom ñooy gérer réunion yi ñoom ñooy dox yenn yi donc ci loolu nag Charles Michel ñëw na fi altine bii mhm. dajeek président Diomaye Faye du lu ñu faral di gis parce que tubaab bi toujours dañ jàppoon ne ñoom ñooñu moom. wala suñuy relation ak ñoom war na tax ñun ñun ñooy daw seen ginnaaw. parce que nga doon seet sax boo boo interroger histoire président Sénégal day jóge fii dem France au lieu nawleem président France ak accueillir ko benn waaju ay secrétaire d'état lañ luy yónneel wala yu kenn xamul di la di la soofantal. Mhm. président Thomas Sankara mës na dem France. jamono boobu defe naa moo fi ne bi mu ko mu laajte kan moo kan moo mooy recevoir ñu ne ko diw moom boole yi dafa jaar noonu dem hôtelam tëddi mhm. jàpp ñaamuro waxu leen sax ne dara donc ça veut dire que tubaab yi suñuy rapport ak ñoom toujours dañ jàpp ne rapport boo xam ne entre ñoom dominant ak dominé léegi nag dafa mel ni mhm. gars yi comprendre nañu démarche Diomaye parce que Diomaye depuis bi mu ñëwee ba léegi li mu jiital mooy option africaine. ñun africain yi daal nu ñu gën a. booloo dëgëral suñu kii. léegi nag wane na aussi option souveraineté. souveraineté ak indépendance dañoo xaw a niroo te bokkuñu. indépendance mooy lan mooy nga am drapeau am devise am hymne am république am territoire am gouvernement. Mhm. loolu mooy indépendance dafa wutee nag. souveraineté. souveraineté nag mooy mënal sa bopp. moom sa bopp. sa bopp te mënal sa bopp. te mënal sa bopp loolu day compliqué mais mënal sa bopp moo ci ëpp solo. Mm-hmm. donc loolu mooy na rapport yi dañ ko war a gën a léegi nag waaju bi mu ñëwee nag waxtaan nag jomaay jomaay xamal ne ko ne yéen suñuy partenaire ngeen. Mm-hmm. wax dëgg yàlla li ngeen li ñuy seq yéen parce que boo xoolee Union européenne mooy premier fournisseur du Sénégal. boole mhm. ko aussi 33 pour cent des 38 pour cent des échanges globaux du Sénégal ñu ngi koy def ak pays Union européenne. boole mhm. ko aussi team li ñuy wax tiim Europe Belgique France ak euh, Espagne. ñooñu aussi dañu am relation par te kii mu tudd conseil européen mu ngi nekk Belgique waa ji Belgique la nekk fi mu toll. donc mm, mm. bi Diomaye xamal ne ko nu ñun wax dëgg yàlla dañu dañuy fas yéene liggéey ak ñëpp. Mm-hmm. mais ci biir liggéey boobu nag am yaakaar nañ yaakaar nañ leen d'accord mais buñ señoon nag doxalin wi ak ni daan doxal ñu xoolaat ko mu doon repenser ñu xalaataat ko mm-hmm. rénover ko fekkonde ko aussi maanaam mu jur njariñ lu rëy. Mm-hmm. ci loolu la nekk waaye ji xamal na ko ne ñun ñu ngi ci disposition wane na ne daal am na benn ère nouvelle bu bu bu war a bu war a samp te bu loolu africains yi ak Sénégal plus particulièrement dañuy traité d'égal à égal ak euh, ak français yi loolu ak français yi ak européens yi en général donc loolu jéego bu am solo la. Mm-hmm. en tout cas option bi ñu jël daal option bu baax léegi nag. nañu fexe nag ba mënal seen bopp. mënal seen bopp mooy sa mbéy mi nga doxal ko sa industrie nga doxal ko sa pêche léegi nag diggante ñu nag Union européenne dafa am ay accord de pêche yu ñu kii. Mhm. te bu ci yàlla àndee ren la len lay len lay jeex. Mm. léegi nag yàlla def na lu baax. parce que jomaay mi ngi soog ñëw bu ñëwee fekk donc accord yooyu mën nañ ko waxtaan. parce que dañu am benn exclusivité suñuy suñuy géej. doon nañu jox sax compensation maanaam am na benn alal jum ñu doon dugal huit cent mille dollars huit cent mille euros ak yeneen neuf cent mille euros xaalis bu takku la ay milliards mais wax dëgg yàlla xool nañ ne géej gi par rapport ak ñun waaw parce que li ñuy tibb parce que c'est des chalutiers yoo xam ne bateau usine la quoi on dit que sax dañuy manque bateau usine donc dañuy dem ba mujj gi géej gi dootul am jot gisoo yabooy yéen ñi dem marché xam ngeen ci dara mm. yabooy mm. cher na mm. lépp dëpp cher ci jën et gis ko sax mooy problème mhm. donc yooyu yëpp bu dajaloo donc oui. occasion la pour Diomaye renégocier ko en mhm. soixante quatre ans après l'indépendance boole ko aussi mu am quatre ans quarante quatre ans boole ko aussi mu jël pouvoir bi vingt vingt quatre ans après son bac donc chiffre 4 bi daal xam naa ni nga seen oustaz bi. Mhm. peut-être moom dina parce que il a un rapport un peu particulier avec le chiffre 4 avec mhm. en tout cas on a vu que li nga wax léegi dafa am solo ay nit lañ yoo xam ne ñu tenir lañ ci souveraineté waaye tenir aussi ci maalaam maanaam lépp lu tënk wàllum Afrique parce que nag bu ñu xoolee sax seetlu ci seen ministère bi dañu def ministère des affaires étrangères euh, ak euh, euh, pour l'intégration de de l'Afrique ça dire que ñu ngi bàyyi xel au la de Sénégal mais Afrique yëpp dem ba booloo ñoom itamit def benn say mën seen bopp on a aussi benn rencontre euh, bu amoon euh, foofee ca entre FMI Banque mondiale nekk amoon fële ca États-Unis ñu gis nag suñu ministère ministre euh, des affaires étrangères ak de l'économie aussi des finances am ay kàddu yu am solo yu nga xamante ni yëkkati nañ ko fa parce que wax nañ leen que dàq ñu benn yoon jël financement waaye it bëgg nañu dem ba moomal suñu bopp ba mënal suñu bopp ba euh, financement yi nga xamante ni da ngeen koy joxe duñ ko duñ ko soxlaa ci benn yoon. Mm-hmm. aussi li nga li li Diomaye wax je que da koy tënk mooy partenariat rénové fécondé repensé ba. Euh, kenn ku ci nekk di nga ci gis sa bopp waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo di les principaux concernés xëy na duñ ci lajj benn yoon. Mm-hmm. waaw xam nga da nga ne ministère bi niñ ko appellation mm-hmm. dañ ne ministère de l' intégration africaine et des affaires étrangères. loolu lu bees la ci appellation. dañu wax ministère des affaires étrangères après et de l'intégration africaine mais ñoom dañ ko juutal dañ def ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères loolu mooy wone c'est une option panafricaniste. Mm, l'Afrique d'abord waaw l'Afrique d'abord. xam nga bé ci sa weyu tànk. nit ku ñun suñu xaal pulaar dañ ko wax ne da ko bandum ñun africain africain ko bandum mm-hmm. donc ci loolu lañ nekk. léegi nag moo boo gisee loolu da lay wane ne te boo gisee aussi xam nga wax dafay méngoog sa jëf mhm. bi ne ministère de l'intégration africaine et puis fi ñu ko def par ordre protocolaire après le premier ministre moom moo ci toog mhm. donc ça veut dire que dañ ko jox importance bu bu fi premier ministre nekkul moom mooy chefu gouvernement bi mhm. ministre de l'intégration donc ça veut dire jox nañ ko important loolu mos am Sénégal donc yooyu yëpp bu loolu weesoo aussi gis nañu prestation de serment waa CEDEAO la il a réussi une chose à regrouper la CEDEAO originelle xam nga CEDEAO am na ñaari bloc la mais fexe na ba dajale leen ci prestation de serment beneen mbir bi aussi première visitam yi daf ko consacré à l'Afrique mm-hmm. Mauritanie ak Gambie donc ça veut dire que seen option la pour ñoom léegi am na beneen affaire boo soulever aussi ne ci partenariat bi mm-hmm. partenariat bi aussi noonu rek la war a mën a dem parce que Covid bi war nañu jàngal. Covid bi daf ñu jàngal lenn mooy nous devons prendre en charge notre propre destin. bu la ci kenn nax gis nga liggéeyal sa bopp ak yaakaar sa bopp loolu rek mooy solution bi. soo gisee le monde mouride a réussi beaucoup de choses. parce que ñoom il prennent en charge leur propre destin. parce que biñ si bu ñu interroger histoire bi ñuy tabax jumaa ji ay cent quarante francs rek leen doon kii leen doon cotiser. léegi bi ñu cotisé ba pare ba defar jumaa yi ab dañ leen sëñ Fall daf leen lii mooy yoon wi. Mhm. depuis lor nag yoon woow leen topp. Mhm. Masaalikul Jinaan trente milliards ainsi de suite gis nga nit ki yaa war a jël sa bër parce que mënuñu dëkk Sénégal am suuf am ndox am terre. Mhm. xam nga am lépp ñu dem ba pour blé ñu dem voir un pays en guerre. di di ko saraxu pour mu dimbali ñu pour ñu am blé donc loolu yëpp donc ça dire que. lu wax dëgg yàlla ñi seen taxawaay bi bu leen yàlla dimbalee. Mm-hmm. ak ñun Sénégal yi aussi ñu dimbaleen parce que dafa am mm-hmm. loo xam ne aussi ñun dañ leen war a accompagner. Mm-hmm. man dama daan dégg ñu wax appel à l' insurrection di ko taxal Ousmane Sonko. man ma xam ban ban insurrection laa bëgg ñu taxal ko. fi mu toll nii appel à l' insurrection des mentalités. dañu war def révolution des mentalités. waaw soppi xel mi ñu bañ ku nekk am réew bu la ci kenn xam tant que mentalité yu changé wu mënul développer lu gars yi xarañ xareñ am yéene tant que mentalité yi changé wul mënut a développé bu dee yow dañ lay tabaxal ab stade boo bëree làmb ba pare yàq chaise yëpp mm. ah bu dee mer nga toj BRT ak leneen ak leneen te yooyu suñu alal mhm. bu dee kii nga nga taal bu busu dem dikk donc citoyenneté bi aussi il faut ñu xoolaat ko mhm. fexe ba ne peut-être ñun suñu génération yi passé na parce que mais peut-être xale yi ak école bi buñ leen ci dimbalee mën nañ def un Sénégalais nouveau mhm. bon adapté honoraire et puis mu doon un Sénégalais boo xam ne day tendre vers la souveraineté di jéem mënal boppam. Hmm. Hmm. mu di lu am solo mais sénégalais nouveau adapté à nos réalités. Hmm. est que du loolu la ñu soxla aussi à l'Assemblée nationale des députés euh, adaptés à nos réalités parce que ñu ngi wax waxu motion de censure jëmale ci Ousmane Sonko agitation yu bëri lool on a vu Abdou Mbow entre autres yëg. tëb di wax mais ni ki démb aussi dafa mel ne am nañu ci jot a rétropédalé génne benn communiqué di wax que dinañu accompagner machin euh, bi nga déggee loolu qu'est-ce que sa euh, vous avant ñuy wax euh, may wax affaire motion de censure bi mhm. di wax député dafa am solo parce que député mooy représentant du peuple du nu ñu ko tuddee honorable député yoo xam ne balaa ñoo teg dara ñu indi leen honorable bu demee ba doon méprisable ça pose problème. oui waaw parce que dafa am taxawaay bu la war. léegi nag loolu il faut ñu changer mode d'élection des députés. Mm. par exemple ñu ne député yëpp dañ leen di fal. par kii xam na par circonscription wala yooyu nga xam ne mm. doonatul liste nationale ay yaa ma neex mm-hmm. Ndella Wade neex na ma ma def ko en xu xuja xuja gajaga neex na ma institut ak ñeneen ak ñeneen ñu dajale ñooñu ñëpp ci assemblée koo xam ne mm-hmm. ay saaga rek moo tax ñu indi la foofu wax ju ñaaw rek. ak defante ah, ak defante loolu tax mu ñu def la ci liste ci liste bi loolu mm-hmm. amul njëriñ. dañu war di indi ay nit ñoo xam ne seen background ak seen bëggum réew dañ koy prouver. Mm-hmm. institution ak seen jaar-jaar am de léegi mu ñu am ay honorable au lieu de ay méprisable. parce que nit ki bu ñu nee honorable mooy ki ñu boo demee na ba gars yi euh, jéppi la wax dëgg yàlla. sa sa sa toogaay bi on aurait dû avoir euh, une belle législature ah. si 14e loolu la ñu yaakaar on avait pensé à une rupture réelle. Mhm. parce que depuis 60 ans mais malheureusement mais ah, yàlla baax na am dinañ am peut-être beneen assemblée. mais su Macky Sall c'était la hmm. présidentielle des inédits l'assemblée des des inédits aussi loolu rek lañ mën a xaar <laughs> est-ce que du logique la est léegi nag motion de censure waaw motion de censure bi loi maye na ko parce que loi moo may loolu député boo leen amee majorité absolue hmm. boo leen bëggee gouvernement bi mën ngeen ki mais ñu ngi ko doon agité temps yi hmm. mais depuis mel dafa mel ni depuis démb seen discours changé na parce que nee nañu il privilégie la concertation dañuy privilégier l'intérêt national ah. donc c'est une bonne chose man yaakaar naa ne réew mi fi mu toll nii acte bu ñuy war a poser dafa war a doon act boo xam ne day jëriñ askan wi mhm. parce que bul xool ak yow fi nga féete parce que bu ñu interroger histoire toujours Ablaye Wade avait trouvé la même situation mais à l'époque le président du groupe parlementaire du PS Abdourahim Agne en gentleman xamul na ko nu nous bu vous accompagner gars yi def nañ plusieurs mois avant ñuy defaat législative mm-hmm. en ki nu mu tuddee en deux 2012 président Macky Sall aussi même situation bi la kii avant ñuy defaat législative aussi Abdoulaye def na kii d' abord c' est frère seen frère la jàppale leen ko bu leen ko gis nga temps yooyu yëpp P P PDS. dañoo sage daaw ñu attaqué régime bi di ko accompagner ah bon ils ont ils ont commencé à se rebeller mooy bi ñu commencé viser Karim Wade quoi. Mm -hmm. donc es normal c'était une réflexe normale parce que mënuñu jàpp sa nit wala ñu koy waaj a jàpp wala ñu koy indil ay problème nga toog di xoole mhm. foofu la cassure bi commencé mais euh, pendant plusieurs mois PDS dafa accompagner donc ñi tamit war nañu mën a accompagner accompagner ñi ñu dox def seen déclaration de politique générale dans le calme et la sérénité bu leen neexee nag façon débat bu nekk mën nañ ko instaurer. léegi ki ñu ko instaurer ki ko taxaw tontu leen préoccupation yi yooyu yëpp parce que ji Guy Marius Sagna mi ngi wax démb ne motion de censure bi bi bi farata mooy la motion de censure contre les difficultés du peuple. Mhm. loolu moo ëpp solo nañ fexe daal ñun ñëpp nan la ñuy def ba askan wi seeni problème jeex ci wàllu dund bi. waaw waaw wax moom mu jeex parce que àdduna moom mënul ne bi bi aadama lekkee pom bi la problème yu commencé. <laughs> <laughs> xam nga donc ça veut dire. <laughs> une vie sans problème c' est une vie cadavérisée. bu leen bu leen bu nga nekk ci àdduna bi soxla problème bu yóbboo nga jóge fii mm. dem fële. Yoff wala Touba wala Tiwaawan. Mm. foofu moom doo doo kenn du la sonal. kenn du la kenn du la kii quoi. Mm. perturbé ak ay problème mhm. donc bu kii ne solution yi man donc c'est une démarche bon vraiment salutaire bu waa Benno jël mhm. parce que c'est lent réew mi ñun ñëpp a ko bokk mhm. léegi ku nekk na béy sawar rek quoi ku ne na béy waar alors ci noonu aussi euh, Ousmane Sonko le premier ministre a demandé aux anciens ministres de rendre leur voiture de fonction ak kër yi nga xamante ne moom lañ leen joxoon mais ci kër yi jox nañ leen benn délai bu un mois donc est-ce que waroon nañ xaar sax ñu leen di wax loolu. non mais c' est très normal parce aussi boo ko dégg loolu garaawul quoi man l' essentiel nañu récupérer ouverture mais aussi il y a une chose moom ça me tient à cœur. Mm-hmm. mooy président Diomaye il a fait une déclaration de patrimoine de manière officieuse. officieuse oui. léegi des na nag la déclaration de manière officielle. Mm -hmm. au niveau du conseil de conseil qui qui en fera la publication. Mm-hmm. léegi beneen affaire bi aussi. Mm-hmm. mu fexe ba ay ministres ak ñi nga xam ne ils son régis par le la déclaration de ku ku gérer plus d'un milliard mhm. de budget da nga war def déclarer na fexe ba ñooñu aussi dem parce que nangu oto yi baax na mhm. ak seen ki kii fi dëkk mais aussi na député mi ak ministre mi mhm. non pas député yi ñi nga xam ne dañuy gérer plus un budget de plus d'un milliard qu'il fasse le Macky président Macky Sall avec tous ses problèmes pour ça moom loolu na ko régler parce que mënoo digle càngaay ba pare te tàmbaloo charité bien ordonnée commence par soi def dëkk la xaw ndax def na xaw mais c'est pas encore rendu public dans le journal officiel léegi nag aussi mu imposer ses ministre mhm. ñu def déclaration de politique parce que il est temps quand même. Mhm. il est temps d'accord mm-hmm. alors reddition des comptes on en a mais ba tey jii jur na coow OFNAC créé Cour des comptes ah, yooyu yëpp ñu ngi naan que nañu rendre public yi nga xamante ne moo di rapport yooyu noonu euh, pour yow liggéey bi fi mu toll est-ce que baax na ak lan la ci mën a xaar. Mhm. en tout cas mën jàpp naa ne reddition des comptes wax dëgg yàlla loolu dans un pays normal. énorme loolu dafa war a am parce que boo jëlee am nguur da nga war def état di liir xam lan la lan nga fi fekk ak lan bu loolu weesoo ñun dañu am droit à l'information nous sénégalais mooy bu njëkk bi donc boo publier les rapport danga ñuy jox danga ñuy informer xamal nañu lii moo fi nekk beneen mbir mi aussi mooy c'est une demande nationale waa réew mi ñoo laaj ne dañoo bëgg ñu leeral mbir yi waaw social et national la quoi parce que réew mi ñëpp ko mm-hmm. bëgg beneen bi aussi dige bor la mm-hmm. c'était une promesse électorale mm-hmm. de Diomaye Faye moo ñu ko waxoon léegi nag ci loolu man defar na dégg gis naa ne ñu ngi ci yoon te bu loolu weesoo aussi OFNAC def na publication mais IGE dafa am lu ko régir mhm. IGE moom day déposer directement les rapport au président de la République léegi nag pour mu mën ko rendre publique il faut que le président de la République fasse ce qu'on la déclassification maanaam mu dee def benn décret wane ne léegi lii mën nañ ko rendre public xam naa loolu ils vont le faire incessamment mhm. léegi nag donc loolu daal soxna si mbaax mi mooy leen dina indi transparence mhm. dina indi leeral ensuite bon gouvernance bonne gouvernance mooy seen ñetti jiir mhm. mhm. jub jubal jubanti mais nag du yem foofu waaw la logique voudrait que ñi nga xam ne teguwuñu ci yoon nga indiwaal leen ci yoon léegi pour indi leen ci yoon yàlla y a la justice donc justice sociale boobu la ñuy soxla après boo gisee ni ñii dañoo luubal ak ñeneen ñii def nañ lu njombe lu rëy. ñii askatu xaalisu mm-hmm. Sénégal yu dem na yooyu yëpp. nga faaw de ñu daan leen nag. waaw mais foofu noonu dafa jug débat daan moo jug tamit de là à dire que dañuy fayoon toog nañu leen woo rek ci suuf ñu delloo xaalis bi après ñu dem toog loolu noonu est-ce que dina servir d'exemple pour pour pour la postérité. ñi nga xamante ne tey dañu war a dañu war a gérer bu ñu gisee ni kii kat ah dénkoon nañ ko xaalisu askan wi mu lu mu luubal ko mm. tey jii non seulement gokki na mais tëj nañ ko kaso aussi yow bu ñu la dénkee dina am taxawaay ba war a am waa en tout cas exemple moom dafa war a jëriñ mm-hmm. bu dee nañ fexe ba xaalis bi aussi opération muy ah opération gox. <laughs> wala bu la neex sax <laughs> <laughs> yëlëb. yëlëb yëlëb. lépp wodd rek. lépp wodd rek Adja na lépp wodd rek. léegi bu ñu fexe ba yëlëb lépp moom dina baax. Mhm. léegi nag kii nu mu ñu fexe ba xaalis bi ñëw léegi nag aussi ñu gën parce que exemple aussi dafa war a servir. sanction loolu lay jëriñ. Mhm. sanction ñaari façon la sanction positive ñi def lu baax liggéey bu baax ñu sargal leen. Mhm. ñi def savaano aussi li war ci ñoom ñu teg ko léegi nag fexe boo récupérer xaalis ensuite aussi ñu fexe ba aussi fiscalité bi mhm. déjà sax am na ñaar ñu ci téye mhm. ci affaire fiscale luubal yu ñu defoon plus xaalis bu bari mhm. donc fiscalité bi aussi ñu fexe ba mu gën a ñoñ fexe ba aussi informel bi xaw ma nu ñu koy xalaatee parce que ñoom ay c'est ce que j'appelle la république des inspecteurs des impôts mm. donc ay inspecteurs des impôts war nañu mën fexe ba secteur informel aussi seen milliards yu bari yi ñu koy ñu fexe ba nu ñu leen koy taxé mm. mu ñuy fay fiscalité donc yooyu yëpp en tout cas ay so en tout cas lii daal lu baax la mm-hmm. léegi question bi kay mooy est-ce que Diomaye ira-t-il bu ah, yaakaar nañ ne dina egg ba cëppaandaw ba parce que commencement ba fin. Mhm. wax dëgg yàlla les gens suivent. Mhm. Hmm. les gens suivent et puis gis nañ aussi ndogal yi nga xamante ne jël na ko par rapport ak ñi liggéey ci fonction publique ngir ñu xool leen saytu leen xool naka lañ fa duggee niñ fa duggee ndax yor ndax na ak est-ce que ñu ngi def seen liggéey. soxla foofu nag di leen leen gis lu lu doy waar. non parce que dans l'histoire de l'administration sénégalaise yooyu dafa mës a am. Mhm. ay da gis nit koo xam ne doo xam fu mu jógee. parce que l'administration dafa am lu ko régir. pour nga dugg fa il faut faire un concours wala yenn diplôme yi nga am ko mais du ñu bëri dañu fa nekk te waruñu fa nekk. waaw temps wu Ablaye Wade il y avait 2000 agents fictifs qu'on avait démasqués. Hmm. temps au ministère de l'éducation nationale. avec euh, kii nu mu tuddati du Diallo ba ñu sanctionné leen. Hmm. tout ça donc mais mais soxna si bis mu duggee ci maire yi nag la ñuy jommee. maire yi. maire yi du administration bi ne maire yi non maire la il se passe des choses extrêmement <laughs> doy waar yoo xam ne. benn benn oto di chauffeur. waaye doo doo doo gis ay gis ay nit yoo xam ne mosoo leen gis ci maire yi. te ñu ngi fayeeku ñu alal ju bëri day saw xam nga niche yooyu buñ ko fattee rek. Mhm. dina indi alal parce que soxna si sunu alal dafa yàgg saw. waaw et li ci gën a doy waar c'est pour des c'est une gestion politique. la ñuy def lañ koy def nga gis koo xam ne amul benn lijaasa amul benn kii mais ñu ne la contrat spécial di ko fay xaalis bu bari. et puis xam fu ñu ko teg am na benn télévision mm-hmm. publique comme ñu koy waxee koo xamante ni 12 euh, ans durant moom du liggéey si de am na fa contrat chaque weer ñu viré bu xaalisam parce que lan c'est la femme de diw. am na fa contrat du liggéey si. c'est la femme de diw xaritu diw la diw mi ngi ci nguur gi ah, loolu aussi est que yoon la à côté am na leen jour des journalistes yoo xamante ni ku ci mel ni Rougiyatou Ba par exemple privé nañ ko de son salaire ndax lan daf dañ ko dafa dañ ko ne joxel information bi mu ne duma ko joxe te awma ci source donc yooyu yooyu aussi c'est à réparer euh, euh, gouvernement bi man c'est-à-dire du pression mais yooyu aussi baax na ñu taxaw si en fait. daal daal parce que c'est des injustices yoo xamante li mu wax nii c'est très important. du foofu rek kër googu rek am na yeneen kër aussi yoo xam ne da gis koo xam ne foofu lay liggéeyee de. Mhm. chaque mois mu dem Dubaï ñëw jaay leen marchandise yéen ñi fay liggéey moom ay Dubaï ak yooyu lay dem de <laughs> parce que jëkkëram wala dara. Ah, yéen bu ñëw après ñëw di leen jaay marchandise. Mhm. te moom moom ak yéen liggéey de bu weer dewee. ñoom seen day fayeeku ci biir kër gi seen carte gab la ñuy yor dañuy jékki-jékki jékki-jékki rek seen xel dem ci salaire bi ñu jàdd foofu dugal seen carte gab jëlaat donc il y a tellement de choses d'injustice qui se passent dans ce pays te vraiment Diomaye a un chantier énorme mm. énorme léegi nag ah gis naa ne am nañ de ñu ngi galéré dangay gis il y a deux Sénégalais mm-hmm. le Sénégalais qui danse et le mm. Sénégalais qui pleure mm-hmm. malheureusement malheureusement malheureusement euh, temps bi xot nañu. Euh, mhm. Salma. oui euh, doyen tey yaakaar naa ne. Mhm. laal na sujet yëpp ah. oui am na solo tey kenn jëlul ci taawam. non déedéet. ah jëlu leen ci déedéet tey moom. ah tey mën na sëkk. tey mën na opération yi bi mu wax moom. Mhm. neex na loolu yëlëbu bu yëlëb nañ yëlëbal rek ku ci ah. nekk rek joxe li nga moom ah. di am solo mu dellu si sénégalais yi di la jaajëfal oncle préféré waaw mais di leen ñaanal <laughs> yal yàlla gën leen fi bàyyi amiin dox gën ñol mm-hmm. gën a am ay promotion yu ah, surtout nag promotion <laughs> liggéey daan de promotion mm. ok waaw liggéey daan de promotion yow aussi Serigne Saliou Gueye moom it suñu oncle préféré waaw suñu oncle préféré la <laughs> Serigne Saliou jàmbaar la waaye Serigne Saliou Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom suñu nijaay préféré la bokk suñu nijaay préféré la bokk ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar mhm. borom yor yor borom nu mbelaan boo ñëwul nu mbelaan nu mbelaan du neex maa ko wax <laughs>